The EU uh, Election Observation Mission, EOM, has reported uh, campaign malpractices during the recent uh, presidential election campaign, including abuse of state resources by President Adama Barrow of NPP. um, nyimu kibarol timi yalon komin ko anyanga ah, bota am um, nyeng EU uh, ah, election observation uh, la bulo kono iko a uh, karte mi yalon komin ko a December a uh, fourth presidential a ye reporto di la kayitandi komin ko a kulla keta mi yalon komin ko nyanga manyan na pour ke uh, mimbe dending um, kula kata mi yalan komin ko ñinga amanya nakake ando ñing mi yake walan komin ko a president of the republic of the gambia walan president adama baroti a ila ila diamo kono nata ka fo fanan komin ko the united democratic party a min kata udp te ye dol fanan jele a ñing ibe a good sol dol siakan a ñing ye mitinol do do do min soto ka fo komin ko a dula woro a biri tata ñing birin a npp tata je mitinola ñing ye yeg ñing malsakunda la motol uh, use ani malsakunda do kula so inata kajela komin ko awomo ah, abuse of um, um, uh, ñing um, that um, was an abuse comme en kula mi ko ya kala imanyen na pour kake anin am ah, nyen nyen ah, campaign wala sarto manta woto wo mo fennati mi yalan ko men ko be nyen tala pour kan hakilo to je bare am be am nyen chance la ngel fanan la nyen prediamo ni la la topi ko mi yalan ko men ko wala ka gars yi euh, wëñeeku si waat nañ tey nag dañoo ñëw laal ki nga xamante ne moom mooy président bi waaye amuñ ci moom ak waaye ñi nga xamante ne tamit itamit euh, moom ñoom ñooy ay ay naataangoom ci mbirum élection euh, gannaaw bi nga xamante ne xam nañ ne élection weesu nañ ko ñii di UN ñoom dañuy joytu EU e sorry dañuy dañ indi seen naxari xol seen indi seen nja njàmbat ne euh, ñi nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom mooy njiiti réew mi jamono bi élection bi jotee woon moom dafa demoon ci ay gox-goxaan waaye bi mu fa demee dafa jël li nga xamante ne nii moom mooy oto euh, nguur gi di ko doxee ak moom di ci def ay sarwiisam uh-huh. te loolu àndut ak lim doon def. ak ñu nekk liggéey ak ñi voilà ak ñi nga xamante ne dañuy liggéey ak nguur gi. <laughs> loolu euh, ñoom ñu fi mu nekk nii mu nekk euh, wax boo xamante ne nii <laughs> euh, xaw na indi réeroo ci seeni biir <laughs> waaye comme ni ko buur bi waxee réeroo amul. ñàkk waxtaan moom moo am. waaw bu waxtaanee rek yaakaar naa dinañ trouver solution. donc mbir mi daal yaakaar naa noonu la. dëgg neexul. man bu ma doon gën a tiital sax mooy bu ñu waxoon ne dañoo gis ne parti yi li des yéeg NPP dañoo fay nit ñu leen di xeexal di sànni ay xeer waaye dañoo jox nit ñi dara nit ñi boo leen di defalee dara ñu defal la dara defal dara fii lañ ko fekk defalaate fii lañ ko fekk nga bëgg dara def dara doo ko dégg ko bëgg dara day def dara te nga sekk surtout sax ngay def loo xamante lu baax la fii loo wax ne ñoom ñëpp kenn politique ci doxaloon amul gox boo dox naxal am na ñoo xamante ne buñ la waxoon ne tey jii lu leen beneen parti defar doo ko gëm duñ ko ŋaan sax rus nañ koo wax sax li ma dooree woon mën ne la politique ku ama koy def ku yorul mënoo politique na wante dëgg ku yorul dara doo politique ndaxte tey jii politique africain nit ku ko xiif saa kumaalo lay xool ki xiif bool ñor tek ak ay ndawal ci bu baax wala ceebu tufatu tarek bu di xey ni nga ne ko xaaral na bële moy pare lu la faale ci xey ba pare xana xamone lek bi nga ñëkë gis moy bi neex motax ñu ne la afrika mais bi bo gisé bi non non ma nglay wax téré tay gis nga bu ñu reyoon ñaari nag mhm. nak bu ndaw bu ñëkë ñor mhm. nga ne yow doo ci lekk ci nag bu mag bi ngay xaar ndax moo gën a bari yàpp mhm. bu la leeree ne bii njëkk a pare moo gën a saf gën a neex. Mhm. lekkoo ci bee di ñëw dee mhm. xormet ba te da ngay rëccu nag. dafa parce que day fekk nag bu ndaw ba jeex na. ngay xaar nag bu duur ba bu ñëwee du saf dara. loo xamante ni. yu xom émi yu nga ma naka naka dafa nu tur yi. E-, am na ñu ko tuddee am na tamit ci biir report bi dégg naa. ah this is the election observation mission. from ñii dañ nekk a ñoo xamante ne ñoom seen responsibility bi. they are from where. from pour e EU. kii duñ ko teg ci xam di ko mën a. loolu laa nekk di expliqué